dafa am lu may sàkku ci Serigne Aïdara ndax dañoo toll ci jamono joo xamante ni bii mm, du ma ni ñëpp a gëlëm waaye ñi gëlëm dafa bari te ma gis euh, Serigne Aïdara ay waxam mi ngi mel ni ku gëlëm rek nekk ci ak lëndëm waxi Serigne Aïdara day doon ab jeneeru sébb boo xamante ni bii moo lay gindi ngir nga gindeeku euh, moom sunu boroom dogal na mbooloo bi nga xamante ni bii ñoom la jiite di seen jëwriñ mën nañoo wax ni dañoo nekkoon ci lëndëm gi ba ñu seenee jéenéer boobu ñëw ngir gindeeku ndax Sëriñ Tuubaa bi mu nekkee ci Jolof tarbiya ruux nga mu doon def taxoon na tubaab yi ko jëloon yóbbu ko Thiel ngir isolé ko mu wéet fa dañoo mujj ni kii nañ ko fi jëlee seet dëkk bu xumb bu àdduna ñu yóbbu ko fa sinon dafay formé ay Ahmadou Bamba yu bari moo tax ñu yóbbu ko euh, Njaareem waaye sëñ Aydara jamono yi dama dégg ay discours am yoo xamante ni bii parce que nit ñi dañoo gisul ko leen wax waaye bëgg nañu lu baax ba tax na euh, waxi sëriñ ay dara mënees na cee jariñu mënees na cee jariñu lool lool lool ndax euh, damay wax ni sëñ Abdou Khoudous yàlla na sunu borom yokki leeram da doon ab pédagogue pédagogue mooy xam-xam bi ñuy jàngalee fi ñu toll soo demee ba am diplôme yu bari maanaam jongante def concours ngir jàngale ba noppi soo jàllee dañ ñu naan na ko kaay ñu yóbbu la fi nga xamante ni bii pédagogie lañ fay jàngale mooy xam-xamam nan la ñuy jàngalee sa yëpp lu da doon pédagogue boo xamante ni mën a jàngale lu mu la wax rek nga dégg ko loolu nag dama ko gis ci waxi sëriñ ay dara ji damaa dégg tey tey ci fajar laa dégg lu benn daggitu vidéo muy wax ci koo xamante ni dafa demoon ci euh, góor yàlla am nu mu fa doon wut kooka ko ngir nga jot ci daal dangay dem foo gisee nit ku gën a yambadi wala ko gën a suufe boo maree ay tànkam rek euh, li nga bëgg da ko am muy wër a wër a wër ba fekk ab nit ci kaw ab sën mu mel ni yor euh, feebaru xel li wolof yi wax dof mu daal di ñëw daal jàpp na ni kii mooy ki yées ci nit ñi daal di mar ñaari tànk yi ba mu ko maree jëmm jëni ko ah yow de li nga doon wër ñu ni la da ngay seet ki gën a suufee gën a yées ci nit yi nga mar ay tànkam man bañ ma ko waxee sama tànki bopp laa mar mais sëñ bi loolu mooy li tubaab di wax modeste ndax ki ñu wax loolu sëñ ay dara nga koy leeral moom génne na boppam ci ñu gën a suufee waaye kee moom nee na ko man biñ ma ko waxee rek xam naa ni maa yées ñëpp dama mar sama tànki bopp maanaam sëñ bi loolu day leçon boo xamante ni ii Euh, nit ñi nga xamante ni euh, dañoo am ak rëy euh, muy li tubaab di wax manque de modestie sa ku ñu gis defe na ni ñoo la gën a kawe sëñ bi bindul sëñ Aydara boobu dafa gàtt te te te te fasu ba ñu mën cee ba ñu mën cee jariñ ba tax na daal li ma koy yalwaat mooy mbàkkee nay wax te waxam ci ñu di ko ñu di ko tasaare ndax man am naa sama benn dom dom la ci man ndax moo ma def bàyyi nekk euh, dëkk bu ñuy wax Lille ca France euh, yoon wi mu mujj damaa ñëw fii ma man de sama soxna dafa tollu diggante te ma bëgg may ñaan bu euh, saa boo fii ñëw tasanteeg mu mucc ndax nga ma doom ci yàlla dogal novembre ma dem Paris mu woo ma ni ma soxna si kat mucc mucc na maa dem Lille tuddal ko doom ci mu tuddee ko soxna jaara ci discours sëñ Aydara la déglu ni ma kii daal bëgg na maa xamante ak moom ba fii nu toll fu ma gis waxi sëñ Aydara yónnee ko ko ce qui veut dire que nit ñu baax ñi nga xamante ne bii bëgg nañu lu baax dañuy dañuy jariñu ci ay waxam moo tax daal li may sàkku ci moom di ko koy di yelwaan daal mooy sëñ bi nay ñu koy tasaare maa ngi jégalu na